ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala al-falaah qad qamat as-salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah والسماء ذات الوالي واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب القبور ذات الأقرب ثم لا يقولون وما لا يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز العميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا من ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب العريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو ذو العرش المجيد فحاب لما يريد ألا تكاديس الجنود فرعون وثمود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 الله أكبر والسماء والطارح وما أدراك ما الطارح النجم الطارح إن كل نفس ما عليها حافظ فلينتظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين السم والتائب إنه لا يجي الغادر يوم تبلى السائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات السبيل إنه لخير فزن وما هو بنازل

ربنا ولك